Pape Hann faaw nu tëj ndax euh, mënuñoo ñàkk ba ñu wax ci borom dëkk bi nga baaxee ñu dara ci moom ndax fii ñu ne Tiwaawoon la te buñ ne Tiwaawoon wax Seex Seydil Hadji Malick kon nga baaxee ñu ci moom nga tëjee ab yóbbal goo xam ne mu ngay yóbbante réew jërëjëf ñu ngi fii ci dëkk bii nga xam ni dëkku leer la dëkk bii nga xam ni dëkku diine la dëkk bii nga xam ni mën nga ni xob yi sax leer la jaww ji leer la ndax jàmbaar ji ko dëkkee woon te mooy Seydil Hadji Malick Maodo la Mouhamed ibnu Abdullahi al alawi waxoon dafa dafa waxoon ne yow sama xarit maa ngi lay digal sa tànk bii nga teg ko tiwaawoon xali la yauja wan zila bi tiwaawoon tiwaawoonu fii hal yumnu lil mutayaamini ne na boo bëggee barke bëgg teraa nga tegal sa tànk tiwaawoon mu ne arab yi bu njëkk bu ñu daan liggéey dañuy jël benn dañuy ñëw ba ci benn garab ay picc fay ne ñu jël xeer sànni ko ca garab ga bu picc yi naawee jëm càmmoñ ñu gaafal bés ba ne tey seen journée du neex tey waaye bu picc yi naawee jëm ndeyjoor ñu ni tey seen affaire dana baax tey xëy dem liggéeyi Muhammad ibnu Abdullahi al Alawi nee na Tiwaawoon picc yi fi naawee yépp ndeyjoor la ñu jëm amul gaaf fama taara fiiha tairun mutashaimun walakinaha zaatu tuyurul mayaamini dëkk bii di dëkku Cheikh El Hadji Malick radiallahu anhu daan daan toog ci ron garab gii moom Maodo da daan dégg ñu ni branche branche bu ñu arut dëkk sàngam a koy jàngale bayaan dëkk sàngam tafsir quran dëkk sàngam euh, balaaxa euh, fiq euh, grammaire arab dëkk sàngam bala nga matal branche su xam-xam yi jëm mag Maodo toogoon ca ron garab ga di jàngale mbooleem branche su xam-xam ya maanaam tey ñi ma lay wax ñi ma doon jàngal ñi jóge ñi dem université ba def doctorat kon ñooñu jeexal nañ téere yi dellu siwaat ci Seydil Hadji Malick mu jàngal leen moo tax Mouhamed ibnu Abdullahi ibnu Mouhamed yaabaana a jëkkani nee na ko dëgg dëgg na kaay ma wax la keroog bi nga fi bàyyi koo julli juróom a ngi lay jooy salaatulu sang lay jooy mais mboolem branche su xam-xam yi bu ci nekk yaa ngay jooy si Seydil Hadji Malick salaamun ala cheyqin تضمنه الرمس جميل المحيا دونه في البه الشمس إمام يظل الدرس يبكي لفقده وتشتاقه الوسطى فرائده الخمس من العمر لئن أمسيت باللحد ثاوية ورد عليك الترب وانصرف الإنس ci fii la doon toogoon moom moom Seydi El Hadji Malick ci doon garabam gii ci dëkk bii dëkk bu tedd dëkk bu leer bii waaye jël dundam ca feelam ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn xamul nu mu toll moo tax Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh doom ja dañu ko bàyyi yeete nga nga ba maa ngi nii kenn dafatul charxan wa garban ulamaaw yaa ngi nii kenn desul sëriñ Babacar Sy si difaa koy dem ma jawaar bàyyi sëriñ Abdoul Aziz Al Amin turandoo Abdoul Aziz Ala Ndiaye mii sëriñ Babacar dañi jamono tabe ngaa tabe ba indi Alaaji Maalik jeex na dootoo fi tabe ba indi keneen ko mel ni Maodo maa dëxru jaada bi malikin wa ka maliki ka dëhri marra bi malikin lil maliki bàyyu xalifa bi sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour baayam alxaaji Mansour dañuy yow dañuy imam Malik moo ron woon ron xabru Seydina Muhammad daan jàngale mboolem baraasu xam-xam ya imam Malik moomu la ñu weccee alaaji Malik mii rek wa buddi la min malikin malikun bi jamail funuuni lati xad góor gaangoo cofeelam ci yonent bi Maodo kenn xamul nu mu toll moo waxoon ni nag ñëw leen ñu màggal guddi juddu yonent bi ala azimu laylal wilaadati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami uduulu ñaanal sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour mu gudd fan lool te wér ak njabootu Seydil Xaaji Maalik yëpp sunu sëriñ sëriñ Maodo si ak i rakkam sëriñ Babacar Abdul Aziz sëriñ Mansour Abdul Aziz nuyu leen nuyu njabootu Seydil Xaaji Maalik yëpp rek bàyyi bàyyiwunu kenn di leen ndokkeel ci weeru tedd wi mbokk yi nañu jël ay jukko yonent bi boo ko jëlee sa xol dina laab gis nga yàlla waxul ni alal dina mooy moo moo fi jariñ waxul ni askan mooy jariñ ci man yow ma laa yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata allah bi qalbin salimin yàlla ne bisu tiitaange ba nga xam ni papa day daw doom doom daw doom daw bàyyi ñëppay tiit xatal an bu yaaw kenn dekki ànd ak sagoom yàlla ne na alal du fi jariñ askan du fi jëriñ dara du fi jëriñ li fi jëriñ mooy xol bu laab nanu soppante nañu bëgg Seydina Muhammad bu la leeri ni sa xol baaxul ndax nit bu bonee dina yëkki xolam ni baaxul xam nga nooy defa del bari looy wax laa ilaha illa allah waxuma laa ilaha illa laa ilaha illa laa laa ilaha illa laa ilaha illa da nga koy yëkki sa dënn gis nga boo koy wax day dem ba sa xol day fóotu ndax nit boo jëwee am tumu tum bu ñuul sa xol nga wax lu dul dëgg tumu euh, tipp euh, tomb tomb bu ñuul nga nga nga nga nga nga wax nit lu bon tomb tomb bu ñuul nga sàcc tomb tomb bu ñuul nga def lu bon tomb tomb bu ñuul tomb tomb yu ñuul yooyu day dem ba sa xol day muuru mooy waral euh, mooy waral yaa Moussa bu génnee nga wax ci moom lu bon sa xarit ngeen ngeen jàngandoo nga ëpp ko promotion du la ko yéene ki nga bokkal ci société bi nga raw ko du la ko yéene ah réew mi am ku yàlla defal teraanga nga ni day dóor martu mbaa da koo sàcc am ko yàllay dimbali ngay wax ci moom lu bon nga xool ñaari sëy mu neex lool nga tas sëy ba dem ci jëkkër ji naan ko sa jabar day am far dem ci jabar ji ko sa jëkkër day doxaan dem fee naan loolu am ci réew mi maanaam di yàq di nga gis naa ñaari xaritu benn bakkan seen diggante yàqu na li yàq seen diggante mooy nit doomu aadama moo ko def xam nga loolu ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne seen xol daa muuru gis nga sa xol bu muuroo bàyyi njaay mii li mu li mu yéene boppam la may yéene man pap an li ma yéene sama bopp laay yéene bàyyi mii li ma yéene sama bopp laa la yéene mooy boo ko defee rek sa xol yëgali sa xol baax na dafa benn waaye bu ma woo téléphone ma oustaz mën na laaj mën naa la poser benn question man ko bismillah man oustaz man dama soxor oustaz man dama iñaan billaahi nit ma ko wax man ko may sëñ bi nga baal ma nga wax ma li may doyee waay oustaz man dama man ko wax ma li may doyee ay dama soxor ak yooyu munoo mais oustaz dama gis ni dama yëg ci sama xol nit bu yokkoo wala ma gis ko am teraanga wala ku ñuy wax lu baax sama xol day tàng rek ma wax ci lu ñaaw ma def ko ay yoon laa wéet ma ni ah ndeke man iñaan gi nuy wax moo ma dal oustaz loolu métti na ma ma ne ko da ngay da ngay ngay raxas sa xol mën naa faju mu ni ma nu ñuy fajoo ma ne ko saa yoo xëy sa bis bu ne del saxoo kalimatu laa ilaha illa allah tey julli ci seydina muhammad zikrul ilahi lil qulubi quutun góor gi alhaji Abdu ne tudd yàlla day dundal xol mu ni in lam tash bii fa hiya tamuutu su ngeen dundalul xole ci tudd yàlla seen xol day dee waa ji toogaat deux mois woowaat ma oustaz ba koo kooku mu ne man la ko soxar ka la woowoon man ko sëñ bi naka xol bi mun ma wér naa mun ma waxuma rek wér naa yem ci mais mbaax rek laay wax yemuma ci wax mbaax rek mais ni ma tabee léegi xanaa xamoon ni borom xol boobu du tabe déedéet tab du na ci yow dangay ngay nay ku koo gis ku nay vérifier xol bi defal très attention ci moom bul ko jege ab nay defal très attention ci moom parce que xolam baaxul nay ku nay problème xol lay am mais bu sa xol laabee sa xol leer da ngay tabe da ngay maye bay maye loo xam ne sax dangay ngay jékki bàyyi abal ma dara waay mooy sa waay leboon nga ma dib abal ma rek nga daal di leb jàmbur sax di maye mooy borom xol yu baax yi kon nañu laabal suñu xol nañu bëggante nañu soppante nañu yéen yéenante jàmm yàllaa ngi jàkkaarloog ñun mooy borom bu bët bu rëy bi laa tax ko du ko jot siratu ngëmintu wala naw mu du caagi nelaw lu nit def yàlla nga ko gis lu nit wax yàlla nga ko gis mbokk yi nañu laabalaat suñu xol bëggantewaat soppantewaat ci darajey bis bii di bis Seydina Muhammad at bu at bu ne nga soññ